الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا anta alladi allamta luqmaan alxikam waliyahab bil mustafa xayra shiyam mbokk yi ginnaaw bi ñu santee suñu borom tabaraka wa taala julli ci yonent bu tedd bi sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal sëriñ muntaxa mbàkke alxalifatul am yàlla na ko fi yàlla bàyyi te guddal fanam noonu lañ koy ñaanalee kilifa diine yi ci réew mi yépp ak borom xam-xam yeeg jàngalekatu alquran ak fu ñu mën a nekk rek ñu ngi leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi Euh, mbokk yi émission bi nga xam ne ñu ngi leen ko amal jëm ci boole alquran yi mooy yi nga xam ne dañu nuróota bokkunu fu ne ci alquranu karim loolu mooy indi baatu boole bi ñu ànd kook borom xam-xam muy sëriñ euh, Maxtaar Kebe moom Cheikh Saalihu Mbàkke di borom xam-xam ñu ànd kook moom weer wu jot ñu war leen a amal benn ci euh, émission yooyu tey nag mu tombeek fukkeelu émission ak juróom-ñaar incha allah ñu war a dem ak yéen ba ci fukkeelu émission ak juróom-ñett incha allah bi jàlle noonu la leen ko toppalee alquranul karim muy téere boo xam ne saa boo xëyee rek mën cee jàngee loo xamul woon ndax waxi suñu borom tabaraka wa taala la euh, laataa ñuy dugg ci waxtaan woowu yëpp nag dañuy bàyyi sëñ Maxtaar mu nuyoo waaye ñu ngi gërëm sëriñ Mbàkke Souré mi nga xam ne moom la àndaloon ci mission bi nga xam ne mooy yaru ak yare di ci traité yu ama am solo jàpp naa ne képp ku koy topp di nga ci jëriñu rawatina jàngalekat yi di ngeen ci jëriñu bu baax a baax a baax a baax arab yi dañuy wax ne laysal xabarukal ayaami kii dund dara jaar ci ba génn yaakaar naa moo la ca mën a wax loo xamul woon yow mi ci nekk wala yow mi ci mës a nekk kon laataa loolu yëpp nag ñu ngi ànd ak sëriñ Maxtaar sëriñ Maxtaar di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu sëñ Omar Silla maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaare di nuyu ñu seqal plateau bi sëriñ Mbàkke Sourang sama mbokku daara sëriñ Moustapha Sarr technicien waaye delluwaat seet waa CES e di nuyu. groupe ba bépp tàmbale nuyoo ba ak siyaar ba ci ji sëriñ sekk ak sëriñ Fallou sekk ak sëñ daan Touré suñ leen nuyoo rek nuyu nañ personnel bépp ci góor ak jigéen waaye nag di nuyu it bokki daara yi nga xam ne seen itte yépp mooy lii te it mooy seen waar kenn ko ne daa am fuñ lay xëyloo ku xëy fañ lay xëyloo nag xëyee fa nañ la xëyloo soo liggéeyee ba wàcc mën ngaa yaakaaru pay kon waa daara ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare bàyyiwuñ kenn xam naa kon jotati na ngeen jël seeni xalima ak seeni daa te jege seeni allo karamat seen mbokk seen xarit Makhtar Kirame Cheikh Saleh jërëjëf Serigne Makhtar ci nuyoo bu am solo boobu ñu ngi nuyu itam suñu technicien fàttewuñ ko Serigne Moustapha Sarr émission yi moo ci daj liggéey bu métti métti ngir mu mën a jàll ci YouTube bi ngeen mën ko seetaan waaye fàttewuñ suñu xarit suñu wëllëre Serigne Daara di borom xam-xam di jàngalekat muy Serigne Abdou Khoudous Silla nekk ca Daarul Mooti moom itam coordination bi yëpp ci loxoom la ne waaye fàttewuñ ñi nga xam ne itam gannaaw ñii ñëpp liggéey bi ñoo koy coordonné coordination bu ama am solo muy alaaji Fallou sekk ak alaaji Dame Touré suñu xarit yàlla na yàlla guddal seen fan waaye fàttewuñ borom kër gi muy alaaji Serigne Seck ak compagnie C3S fépp fu ci boutique mën a ne ci Sénégal rek képp ku fay liggéeyee góor ak jigéen ñu ngi leen di ñaanal jàmm ak sutura ci barke alquraanul karim sëñ Maxtaar euh, euh, suñu première laaj jëm ci boole di ñaan rek yéen ñu koy seetaan ngeen di ko partager di ko aimer di ko di ko commentaire waaye di abonné ci site bi itam ndax ñu ngi leen di waajalal yu ama ama am solo jëm ci njàngaleem alquranul karim sëñ Matar suñu premier laaj mooy i ndënd i ndënd moom wan mboole moo ci ñëw ci alquranul karim i ndënd juróom ii gi dafa ndënde mooy dafa ñuul mm-hmm. yarut gi koy xëcc mooy ndënd mm-hmm. mooy lu ñuul kukk ku ko xonqal daanu ñu ne i ndënd juróom mm-hmm. min na ba i lanaam min tilqaa'i yunus wa itaa'i naxli wa minaanaa'i tahi aw min waraa'i soore bu ci nekk ii gi koy xëcc ndënd la muy dafa ñuul jërëjëf kon de su ko xonqal dañ ko xonqal ku ko xonqal daanu daanu waaw jërëjëf sëñ Maxtaar sëriñ Maxtaar laajum ñaareel bi mooy ayunuhum ayunuhum moom ban boole moo ci ñëw moom it ba tey ci alquraan karim dafa am ayunuhum ak ayunahum mhm. waxuma ak borom naxwu yi nag mhm. waxuma ak nuxaat yi mhm. bu dee ayunuhum li ko koy def yu bari la dana nekk mubtada mbaa mu nekk xabar mbaa mu nekk faa'il mbaa mu nekk naay bi faa'il wala mu nekk a taabixul ah, marfon boxul mu boobu ayunuhumu daara ak ayunuhumu daara ci lay waxee ayunuhum yett la ayunuhum yett la ñu ngi koy tënkee ba la baraan kahfi laxsab foofa la ahyunu hum ne ahyuna hum yaar la njoo ko xamal bu may nekk ci ahyuna hum nag li ko mën a def mu nekk mafool wala mu nekk badal wala mu nekk taabiun mansuub wala yu mel noonu. mooy andu nuxaat. jërëjëf jërëjëf kon am na ci boole woo xam ne comme la nga waxoon lu yàgg rek boole naxu la ki jàng naxu la concerné. Mhm. am boole boo xam ne jëmmi baat bi ci boppam lay lay jàngat. Ah. kon mooy bakka la. waaw ah, bakka jërëjëf moom lañ tënkee ayunuhum mhm. jërëjëf sëriñ Maxtaar ci leeral bu am solo boobu boo gisee teqantal yi mu koy def day dimbali ki nga xam ne amaana jàng na alxuraan ba noppi waaye jàngul boole ndax njàngum cosaan la bu njëkk foo tolloon ci alxuraan rek boole wa fa nekk danañ la ko jàngal balaa nga koo dépasse moo tax seen jàng wér yàlla na yàlla fay sëñ Maxtaar laajum ñetteel mi ngi jëm ci fahalantum fahalantum moom ban boole ci ñëw fahalantum njeego la njeego mooy juróom-benn ci pël mhm. munta hoon a njoogu mhm. muslimoon a yaar la xóod ak lën bi shaakiruuna baamab lan bi mux noona yaar la birim ak xafraan falantum mux noona falantum muntahoona falantum muslimoona wala mu ne falantum njeego la juróom-benn mhm. muntahoona njóogu mhm. muslimoona yaar la mhm. xóod ak lan bi shaakiruuna baamab lan bi mux noona yaar la birim ak xafraan xafraan mooy suratul xaafir mooy xaafir jërëjëf lan bi mooy suratul anbiya anbiyaay macha allah jërëjëf sëriñ Maxtaar ci leeral yu am yooyu jëm ci fahal antum euh, beneen laaj bi nga xam ne moo ci toog muy ñenteelu laaj bi mu ngi jëm ci warimaa xukum warimaa xukum ban boole ci ñëw. dañ ne warimaa xukum njoogu wari xukum lan faal xukum tongu yaar muy xaalonk la day bi nga def ko ayin mbaa nga def ko ak mu ne warimaa xukum njoogu njoogu mooy maida wari xukum lan faal xukum tongu yaar muy warimaa xukum wari xukum mu ne xukum tongu yaar. jërëjëf ci leeral bu am solo boobu jëm ci warimaaxakum xukum tongu yaar euh, li ma ci gën a neex nag mooy tënk gi ko mañ ñi tënk ba nga xam ne yow même boo ko xamee ci faram-fàcce am na fu la koy tënkalaatee ci tënkal ko ci baat boo daan jàng naxu maa ngi fàttaliku euh, yàlla ko yàlla yërëm oustaz Fall ma nga dëkkoon Kaolack bu ngi daan jàngal naxul waadix bu Moustapha Ali Jarim boo jàngaan mu tara ba noppi am na xaayida bu ne ca gannaaw téere ba daan la fexeel bu mokkal xaayida bi rek même boo déggee téere yi te mokkaloo xaayda su ma laajee waaye tënk gi ko mag ñi def itam yàlla yàlla yàlla yàlla barkeel na seen xam-xam mm-hmm. Mm-hmm. sëñ waxtaar juróomeeru laaj bi mooy rij ji jëm ci jorngel rij ji jëm ci jorngel moom ban boole ñëw rij ji jëm ci jorngel sàppo fukk la mm-hmm. rij ji sun kon rij gi siin fi jorngel la muy daa wow day bañ nga tooyal ko mboccor lay bañ mu doon ko mu ne rijji ji suna ci tegee sun googu jornge la mu ne rijji jëm ci jorngel da nga waxoon léegi ci tënk bi tànkal nañ na dana rijji la waaye nag la ca kanam jorngel la mm. mu ne rijji jëm ci jorngel sàpp mm-hmm. rijji sun naayo la ñeent mm-hmm. ni ngi koy tënkee mi fa wa i mi fa wa i mm-hmm. min amali njoogu fa innahu lanaan wa xadiba laaraaf innahum baraan macha allah macha allah jërëjëf ci euh, leeral boobu jëm ci rij ji jëm ci jorngel baatu jorngel moom fàttali ko mooy. mooy siin su wow. siin su wow safaan bi mooy mboccoor. mboccoor mooy siin su tooy jërëjëf. Mm-hmm. ak mboccoor. ñu bàyyi ci xel kon ñi nga xam ne yéen a ngi déglu diggante jorngel ak mboccoor mm-hmm. bàyyi leen ci xel ndax ay baati pël la. Mm-hmm. te leeraloon na li tax baati pël yi nekk ci boole. ndax fam jaaree dugg ci Sénégal. mooy ca pël yi la muy ca Jolof. Euh, suñu mbokk yooyu nga xam ne. boole seen loxo la tàbbi woon. ñoom lañ ko jëlee moo tax baat yi mënu caa ñàkk mhm. sëñ Maxtaar juróom-benneelu laaj bi mooy rijji sa taara rijji sa taara moom wan boolee ci ñëw dañoo bëgg ne rij jëm ci jongeel fukk la fi ne ñeent dong lañ leen waxagum mhm. léegi nag ar rijji sa taara nga xam ne moom daa boole taara mhm. ak jëm ci jongeel moo tax mag ñi jàmbaale jàmbaar bu njëkk bee ñeent la bii itam nekkaat juróom-benn mu ne ar rijji sa nag taara naayo la naayo mooy ñeent kadalika yajcalu llahu rijsa nga lan'am wa yajcalu llahu rijsa nga yunus fajtanibu rijsa nga hajji yudhiba ankum rijsa nga laxsab rijsan ila rijsihim yëpp nga baraan macha allah rij daal di jeex nag jëm ci jor ngeen macha allah baraan mooy baraan mooy baraan baraan mooy ibrahim baraan baraan mooy baraan baraan ak baraam ok baraam mooy ibrahim baraan mooy baraatun macha allah macha allah jërëjëf ci rijsa taara juróom-ñaareelu laaj bi mooy yaani mbóore yaani mbóore moom ban boole ci ñëw yaani mbóore njeego mooy juróom benn mhm. law la yaani njoogu mooy maida hal yastawi yaani yaar la xóod ak sumar fata yaani nga mbargaan mutlaq yaani nga majid macha allah macha allah jërëjëf sëñ Maxtaar ci yaani mbóore baatu mbóore moom mooy mën a dij laaya mhm. te dijut laaya mhm. baat ba dafa continuer ni ki walahum xasaabun aliimum bi maa kaanu xasaabun alimun boobu mbóori la mm-hmm. parce que du jëw ci laaya mm-hmm. da ngaa continuer jàll juróom-ñaareelu wala juróom-ñett juróom-ñeenteelu laaj bi wala juróom-ñetteel bi mooy jaba jam-jam jaba jam-jam njeego muy juróom-benn mm-hmm. jabalun yett la min naa nga laam yaasimu nee nga xóot la ra aytahoo nga xasri wala wax jaba ku ma nga laam wala wax jaba ka yaar la njóogoog laxsab muy jaba jam-jam jaba mm-hmm. jam-jam mm-hmm. macha allah ci boole bu am solo boobu mm-hmm. suñu juróom ñeenteelu laaj nga xam ne mooy laaj bi mujj mooy mbankaan songitaara mbankaan songitaara njeego juróom benn la dafa banku moom tàlliwut ba noppi la ca kanam taara bu tàlliwoon nii kon day naan dafa tàlli waaye nag dafa dafa banku songitaara jërëjëf kasratul xabiisi njóobu kasratu gi dañ koy bank xaadiratal bahri laaraaf sakaratul mawti majid nadratal naimi mikiyaal rexlatal chitaai quraysi xamalatul xatabi ca lahabin macha allah bu ci nekk day day bank songi taara jërëjëf jërëjëf suñu waxtaan macha allah xam naa nag am na ci kanam tuuti ñu ngi waajal yu am solo waaye bëgg nañ lii nga ñuy waxtaanal nii nazariyan mhm. di ko théorie mhm. tegal la tableau teg la bi ki na ci daara tey xam boole yi ngay wax nga xam ne aaya boo ci wax di ñu ko bindal wax ñu aaya fa mu ne ci alquran karim ngir ñi nga xam ne ñi ngi ñëw ndax xam-xam bu raar la xam-xamu boole yàlla may la ci bu baax a baax a baax di la ndokkeel nag ci euh, di profité wala ci occasion bi sëriñ Mountakha Mbacké xalifa général des mourides ak teraanga yi nga xam ne agsi na ci yow bàyyi ko ci moom xam ne mu seetaan ko bu démb yàggul dara démb rek maa ngi seetaan vidéo bi ak sëriñ Abdou sama sëriñ Sohaybu mm-hmm. lépp di ndamal alquran mm-hmm. waaye di ndamal sëriñ Saalihu Mbàkke mm-hmm. ka toog jotaay ba daa wax lu am solo mag ñi bi ñuy taxoon nag ñu mel ni yéen ngir bu ñu fi jógee rek la newoon ci ñoom ngeen def ko ci yéen yéen jamonoonteel muy wax ju rëy ndam loolu nag ñu ngi la koy ñaanal Muxtaar yàlla jëm kanam yàlla barkeel la ndax euh, lii rek la la yar di jëriñ yar nit wan ko gannaaw ay nit yu bokkut ak ñoom fu ñu yare di ko ndamoo mm-hmm. ngir yar bu rafet bu nekk ci ñoom mm-hmm. loolu foofu la ndam mën a mën a yem mm-hmm. kon euh, yan kàddu nga ci yëkkati rek xanaa di tey gërëm tey jàjju tey góorgóorlu ndax ko toll na Cheikh Mahmadul Muntaxa xafidahu llahu wa raa amiin wa waffaqahu wa tawalla nekkal fi Sëriñ Tuubaa ci zaahir ak ci su demee ba mu xelam di ci yow donc tawféex mënu koo féete ko ba yàgg mu am lu mu bëgg ci yow ba jël waxukaayam wax ak man ne ñëpp xam ne loolu ñu wane noonu première jataay la ñaareelu jataay ba dafa maa laaj te ñu ne ko maa nga sowwu mu wax ka yore waxukaay ga ne ko indi ma wax ak moom wax nañ pili di dix wax jooju nag moo duggul ci waxukaay yi moo gën a yéemi sax yi ñuy dégg kon maa ngi koy sant waaye si Abdou Samad mi nga xam ne moo ko dox yeggale ma fa wan ko liggéey bi loolu itam kooku ku ñàkk kiñaan la. dëgg waaye ku ñu yéene ñëpp jàmm la. la ki gën ci nit ñi nag. Mm-hmm. mooy ki gën ci nit ñi. Mm-hmm. maanaam mooy ki gën a baax ci nit ñi. Mm-hmm. xayrukum xayrukum li ahli tax na nag sëriñ bi ci biir wax ji ñu wax dama ko ne mbàkki lii nga ma jox dama koy denc suma faatoo ñu laxas ma ko mu ne ma déedéet sol ko dama lay jox yeneen. mbubu moomu am mbuba ma du mbub moo xam ne da ko dañ ko koo jox mu jox ma ko mbub moom daan jëfandikoo la. allahu akbar ak yem àndal yëpp man soo doon sama ndam ci diine doy na ma garaat boobu gisaatuma beneen bu ko ëpp te li ci gën a kiimaane sëñ sëñ Omar sëñ Saliou dañ daan jaxasoo ci lu mel noonu dama ko daan jox ay woy ba bis wallahi asim lu matul ñetti weer bi mu làqoo damaa nuyoo ci biir mbooloo mi rus lool bañ a bañ a boox booxloo sëñ bi seeseet ndekk sëñ Saliou xëcc na sama catal mbubb ma geestu ko mu ne ma salla way yéen fi daan way yéen fi daan indi daf ma daan wéttali de ma dem ci guddi gi defal ko ñaari xasida ci guddi bi ma xëyee ma indil ko ko yendu fa ba ngoon mu ne ma sala sa wayee di ci soo ba léegi moom may wétali maa ngi koy jàng ak jàngaar rek loolu bu dee sëñ Saliou sëñ Saliou jóge fi 6 2006 ñu toogaat ba yàgg ma woy sëñ Mountakha ay way mu jaaraat fa sëñ Saliou jaaroon mu ñor ko nam ko ñore woon safoo ko nam ko safoo woon ba mu yëkkati màndarga li may wax man mooy ci lisaanul xaal ndeke maa nga fa ma woon ba tey ña ma daan jëf leenteel ba tey ñi ngi fi jërëjëf loolu moom a gën a marqué ci Cheikh Mouhamadou Mountakha kon nag maa ngi koy sant waaye di sant yoonu murid wépp waaye di beral ak kenn sëñ Abdou Samad ibnu Cheikh Chouaib ndax kat nit mën naa mel nu ne moo tax yonent bi sax sama waxoon aajam juróom ja man ballaxa xaajata axiihi ila sultaanin xafallahu zallatahu yawma alqiyaama allahu akbar sultaan mooy ku kenn a ba ne ko ko ne ko déwa nga ca bunt ba ba la kaay nga ñëw la jéggal naa la kon sëñ Abdou Samad ku baax ku nite damay wax ne man sëñ Abdou Samad gëm naa ne sëriñ sëñ Tuubaa la gëm naa ne kenn rëwu ko gëm naa ne kenn gënu ko baax mais nite gi nite gi moo ma màkke ci moom waxtu wala maa ngi koy wax jataay yëpp ak niteem moo mën a moo mën a remplacer ak wilaaya pourtant Cheikh Sall Mbacke daan ko wax sëñ wax naan sala li may def leen teg yéen ñëpp de am xel dong la dara du ci baati asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi alxuraan a ngi noonu saa boo xëyee mu lay gën a saf sa boo xëyee mu lay gën a neex la sunu sëriñ ba waxoon Cheikhul Khadim kitaabun narju bihi min allahi rahmatan wa bihi nanju dunya wa uxra min alkarbi suñ borom tabaraka wa taala itam wax ko ne téere la boo xam ne yonent bi maa ngi la koy fàttali waaye fàttali la ngir yow fàttali la ngir saw xeet danañ leen ko laaj wa innahu la dikrun laka wa li xawmika wa sawfa tusalun in uridu illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. rahmaani rahiim. nuun. wal qalami wa maa yas